teew na fi ak mbooloo mu bare bari di waajal rek bis bii ñoo ngi koy sant bu baax waaye di sant bu baax a baax soxna su baax muy soxna Yaaram Mbàkke moom it teew na fi ak délégation bu am solo waaye xam ngeen bis bii Cheikh Mamadou Bachir comme ni ñu ko waxee rek da ciy rendre hommage jàmbaari l'islam yi nga xam ne l'islam dootu leen fàtte mukk ila yow mi diin ndax dañoo liggéey lislaam ki ci jiitu mooy Serigne Abbas Mbàkke Daarul Moxti Serigne Moustapha Absa Mbacké dañ koy rendre omage Serigne Pape si dañ koy rendre hommage Serigne Baye Abdoulaye Thiaw Laye dañ koy rendre hommage waaye Baye Omar Dia Daaru Salaam dañ koy rendre hommage waaye Thierno Mamadou Alpha Sarr moom it ca bi da koy rendre hommage waaye day rendre hommage i tamit Serigne Modou Mbakhtar Mbacké moom it da koy rendre hommage Alhaaji Ndama Fall Cheikh Mamadou Bachir nee na dañ koy rendre hommage moom it waaye day rendre omage jàmbaar yi tamit muy Cheikh Abdourahmane Fall Tilaliya Xaadimul Xadim waaye day rendre omage tamit Serigne Abdourahmane Mbacke Daaral Moxti Alhaaji Goro Ngom Serigne bi da koy rendre hommage ak Serigne Khalil Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Mamor Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal ak sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Modou Bousso Dieng ñooñu dañ leen di rendre hommage waaye day rendre hommage tamit ba tey soxna maam say baara moom Cheikh Mamadou Lamine da koy rendre hommage waaye day rendre hommage tamit soxna may mu sëriñ Modou Fati Xari da koy rendre hommage waaye day rendre omage tamit soxna Mariam Koulibaly da koy rendre hommage waaye day rendre omage tamit sëriñ Mor Dia moom it da koy rendre hommage waaye day rendre hommage alhaaji Serigne Saadi ca Kébémer moom it da koy rendre hommage waaye day rendre hommage moom it no Thierno Mbacke gelongal ci bi nga xam ne moo fi bàyyi ko bu yàggul ñooñu la Cheikh Mamadou Bachir wax ne ay jàmbaar yi l'islam lañu kenn dootu leen fàtte waaye day rendre hommage yi tamit Serigne Moustapha moom ma samba day jàmbaari l'islam moom it Serigne bi fàttewu ko bàyyi bàyyi ndaama faal wax naa ko bu Sénégal broderie Serigne Bassirou da koy rendre hommage Serigne bi ñooñu lay rendre hommage di ñaan ci yàlla yàlla dolli ci ñoom ay ngërëmal yàlla ak ay yërmande ci barke Cheikhuna Ahmadul Khadim jërëjëf Serigne Seydou Sy ci wax taw woote bu rëy woowu ak jàmbaar yooyu ñu rendre hommage ñu ngi jox nag kàddu gi li olof di wax ni bis boroom li tax ñu mujj ko mooy Serigne Bassirou Mbacké ba mu nekkee coordinateur bi tànn jàmbaar islam kenn ci Serigne Touba Serigne ji li wax na ko léegi Serigne bi nee na dénkaane koo wóolu jënd ka am njëg waaye maye ka la neex maam Cheikh Anta ko neex mu may ko. Ah, Iman doon ni Serigne yomb na. ñoo ñoo ku Serigne bi jur ñu ne Serigne bi. waaye ilimaan a jafe ndax da ngay jàng ba noppi maandu Serigne Afe yaay ilimaan waa kër maam Cheikh Anta ak waa kër Serigne Afe jabatu soxna Anta Ndiaye Mbacke gépp booloo Serigne kaddu Serigne Modou Mbacke yor ko waaye nag saxaar bu jubee gaar day korne Serigne Cheikh Anta Samb bu taxawee nii di kenn ci Daaru Salaam waaye di kenn ci kër maam Cheikh Anta mooy ubbi kaddu gi sëriñ Bassirou Mbacke jërëjëfati benn bis la am moom lay woote moo ko ñor. muy journée culturelle Serigne Bara bis bii ren ñu dégmal ko quinzième édition yàlla nay téeméer te nga fekk ko Mbàkke kon nag li ñuy def mooy jox Serigne Abdou Ndiaye ku ne xam ne ko ci digganteem ak Lambaye ak Serigne Thierno Diouf waaye ku ne xam ne ko ci yoonu Mouride kon Serigne Abdou Ndiaye yow bismillah ci woote. waaw kay Serigne Bass dégg nga noonu ma ko waxee ci bëggam lu baax ak defar ak ñawam nee na làmbaay day dëkku maam Cheikh Anta. kon ñu jox Serigne Abdou Ndiaye moom mu woote waaye woote ci wàll turu waa Lambaay jëpp jërëjëf Serigne bi borom baatin nga xam nga la la war doo war doo werante am nga jomb nga jublu nga ci yàlla te jubal nga ca juboo nga sa bokk te doo bokkatu te bokk nga ñoom li nga bokk ak yow yàlla sawtu rama yéem Serigne Khadim Awa Ba déggal woowaay xaadim ja bàmba la awa ja buso baja baaba la nga wooteel Mouhamadou lamin Baara kenn du ko baare yaxlal baari wujjulu baari baari sàqa yi bar sàq ku jàq baara lay làq daa toppul woon soq ak sàq mi ba fàttale xew bar sàq moo tax ma mën a làq ña jàq bar sàq nga wooteel ko ci foire bi mu am fond te foowe woo ko woote te wuute woo ko woo wàllu yi te woo wuyu yi te wuyu wu ñëw ñu def la wàllu yi muy quinzième dégg quinzième kenn du ko yéem kenn du ko yërëm ndax toppoo ay dërëm ba fàtte ngërëm quinzième ja dugal naa ko ca kees ga ca alxuraan te siisoo teg nañ la ci sees bi yaay xaadim awa yaa woote nga ne daaru salaam koo gis muy dem li Cheikh Anta am lay wut dërëm ak ngërëm jàmm ak salaam dërëm bu amut ngërëm lu mu yàgg-yàgg des na yërëm borom jàmm bu amee te salaam ñëw léegi ay jub sëñ bi nag fi sëñ Tuubaa tëje laa lay waxe yow da ngaa am jom na ñëpp wuti jom fii nga wootee ci foire bi te froissé woo suwaasiir ba noppi ci soirée bi te bëggoo kenn def fi histoire nga taxaw ci kaw comptoir compté waale ñëpp kon kone nga te konente woo kon te ku kone Bamba mu def la ku ne te nga sëriñ bi xaadim awa ba yaa woote te wuute ko dangaa am jom léegi dégg naa ko naan bi fi mbas mi jaaree xamoon naa ne bas bu dajee mbas mi dina ko bës ba du mos di nga del si waat sëñ Muntaxa la ci jàppale moo ko wooteel xasaay ñu xas ko mayi bu ne ko nangu naa say point dootoo fi ami moye mu xaddamaatulam daan ne ko daane naa la ci bis bi dootoo jóg nooru daara ne ko tas naa say daara mu faatur bisi ne ko faat naa la ci bis bi sëñ di di ko génne ko dëkk ba muy wat wat yi bëgg a duggaat mu woote si kar sakk ko xamoon naa ne di nga woote waat ma ne foofu lay yow da am jom Pape Malick min ko tudde rek doy na yaa sayyidil sadaati i jukka xaasidan arjurida tawa akka mi bi makka Alaaji Malick a ko wax dëkk Tiwaawoon te mos ta wax kenn ci oor weer wa ba mu jeex te werante wut ak yónneen bi xamoon naa ne bu traversé nga boole ko ci yow da am jom dafa am génn góor buy tukki am ñetti doom ñëw di ko dénk Sëñ Tuubaa foofu lay tëj li tax ma bëgg ñëpp wuti jom maa ngi nuyu Serigne Modou Mbacke Abdou Wudóot ak Serigne Cheikh Ayes tey sama Serigne Alaaji Mbacke moom Serigne Mohamed Xaadim Gueye fàttewuma la waaye dafa ñëw di ko dénk Sëñ Tuubaa dégluñ li ko Sëñ wax da ko ne damay tukki te xaw ma dinaa del si am déet Sëñ Tuubaa ne comme nga sens ndax man ku tàggoog man ci tukki di nga del si mu ne ko dama laa bëgg a dénk sama ñetti doom yi mu ne ko amaat nga beneen sens ndax loo ma dénk fekk ko fi mu ne ko dama laa bëgg a wax seen jikko door a dem mu ne ko amaat nga beneen sens ndax ku ma xam sa jikko dëkk ak yow mu ne ko kii daa siis Sëñ Tuubaa ne ko dina mën a dëkk ak man saa su ma xëyee dinaa ko jox ndab lu mënta jeexal te du ko bokk ak kenn loolu la siis bëgg siis bëggu te bokk bëggul ñam wu gaaw a jeex mu ne ko kii daa nay suñ Tuubaa ne ko ba ko fi dinaa mën a dëkk moom su ma xëyee dinaa ko jox saa su xëyee lu ma laaj dinaa ko ko jox te du ma ko laaj am nay loolu la bëgg bëgg na ku koy jox waaye bëggul ku koy laaj mu ne ko kii daa ñàkk jom mu ne ko ba ko fi ba yóbbaale ko ku ñàkk jom du ma dëkk ak moom ndax ku ñàkk jom du jomb du jub wasalaam <laughs> jërëjëf sëriñ Abdou Ndiaye kon nag ñëpp bokkaat teewlu ñu déglu Serigne Cheikh Anta Samb mu ubbil waa Daaru Saam sant yàlla bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi te wér di wax ni ñi moom bis bi ñooy waaj a jël kàddu te sëñ Bas jox leen bis bi ba mu mat sëkk teewu ci dara ndax yaakaar naa ni maag yow ñoo ànd ca Cheikh Mouhamadul Mountakha kaddu ya nga doon wax tamit maa ko wax ci sa tur sëriñ bi boolewaat ñu wax la ni la danga ci am ndam yaakaar naa ni maa wax sëñ Muntaxa bis bi mu ña ni ko waa Daaru Salaam yi nga àndal yëgle si ko ak njabootu sëriñ Afi Ahmadul Moxtaar kon yow cofoo kenn yàlla yàlla guddal soo fan sëñ Bas ak bokk dina defaroo ci yow ci lu bari ndax li nga dajale lu yaatu deesu ko xatal te ku ne gis na ñi ngay jox ay kàddu ñëpp yaatal rek a tax te yaatal dafa am solo ndax yàlla dañu yonent bi doo yaatuwul ñi ma la woloo dañuy tasaaroo kenn du yow fa bi ma rahmatan min allahi linta lahum walaw kunta fazzan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik kon nag Mbàkke yàlla yàlla dugal foofa mu mel ni Serigne Mouhamed Mbàkke Abdoul Wadoud moo teewal tey njabootuk soxna Anta Ndiaye Mbàkke fekk fi Serigne Cheikh Aziz mu teeru njabootu Soxna Anta Ndiaye ak sëriñ Sidi Ahmed ak mboolem ak Fatou Cheikh Mouhamadou Lamine Serigne Mouhamed Abdoul Wadoud nag day sëtub sëriñ tubaa di sëtub Serigne Afi soxna Asu Kajoor mi nga xam ni mooy ñaareelu doomi Serigne Touba moo jur maamam soxna Xëri Diop mu jur Serigne Abdoul Wadoud kër maam Cheikh Anta la ko dale ci kër Serigne Modou Mamoun ba ci kër Serigne Abdou Gora Serigne Cheikhouna am Serigne Amidoun Serigne Modou Abdoul Wadoud ànd nag ay waajuram nag sëriñ Mouhamadou Lamine Baara ibnu sëriñ Abdoul Akram sëriñ Moustapha ibnu sëriñ Abdoul Wadour sëriñ maam sëriñ Mbacke ibnu sëriñ Abdoul Akram sëriñ Abdoul Wadour ibnu sëriñ Abdoul Baaxe sëriñ Abdoul Ahad Abdoul Aziz moom sëriñ Afia sëriñ Cheikhouna moom sëriñ Hamidoun sëriñ Afe Mbacke taawub sëriñ Moustapha Lakram sëriñ Muntaqa seriñ As Takko alaaji sëriñ Takko Mbacke doomi sëriñ As Faale suñu sëriñ moom alaaji sëriñ Takko soxna Yaara Mbacke moom sëriñ Makhtar moom sëriñ Afe ak mbooleem ñi ànd ñëpp rek sëriñ Abdou Lahad Mbakkam sëriñ Abdoul Wadoot ak mbooleem ñi ànd ñëpp ñun ñëpp sëriñ Abdou Lahad doomi sëriñ Saliwum sëriñ Afia ak sëriñ Mor Ngiraan ak mbooleem ñi ànd ñëpp bi ñu limee sëriñ Modou Abdoul Wadoot rek ñëpp dugg nañ ci biir ndax moom la kilifa yi dajal sëriñ Moustapha am sëriñ Samdu la ndax soxna Fatim sëriñ Abdoul Xafoorum sëriñ Mourou Mamoun mooy jur mooy waajuram sëriñ Bas nag ànd ak ñun dem Daaru Salaam dem kër sëriñ Afia Serigne Cheikh Aziz maa ngi lay wax ni la sëñ Bas dundalaat na lu bari ndax kii Serigne Xaasim Mbàkke di doomi Serigne Afia lu bari la nettali Serigne Abdou Baaxe ci Serigne Bara te Serigne Abdou Baaxe ngi fi te Serigne Abdou Baaxe bi nga ko bi nga ko jotee téléphone nee na li ma sëñ Xaas wax ci sëñ Bara yaakaar naa ni kenn xamu te Serigne Xaasim sëñ Tuubaa woon kuñ xaasal la rawatina caatum maam Cheikh Anta nekkoon guy mbind ca kër Serigne Abdoul Aziz Bara yooyu yëpp nag dundaat ci yow mu mel ni kaddu. njabootuk sëriñ Moodu Maamun ba ci sëriñ Abdu Góor njabootuk sëriñ Moodu Farmata ba ci sëriñ Moustapha Afe ak seen njaboot gu jigéen gépp tey daal tënk nekk genn kàddu mu mel ni sëriñ Bas la sëriñ Tuubaa defoon samaam yaa ko fedd liwaat mooy maam Cheikh Anta loo gaaw gaaw gaaw sëriñ Afiya moo lay jiitu àjjana sëriñ gaawaan tawat sëriñ Afiya di ko seet si far nelewe Daaru Salaam ni moom kat Serigne Touba waxoon na du du musaan lelli ko sax danaan na ma jiit Touba kon ñaari doomi soxna Anta Ndiaye kii ñu daan jiite jumaa kabar kii ñu daan dimbali di ñu may koppar sëñ Touba boole leen ñuy jiit ñuy lenn amul ñaari kër genn kër la sëñ Touba boole leen boole seen lépp nga jël bis bi dégg sëñ tubaa moo tax nga def jëlaat bis bi ni soxna Anta so njabootu soxna Anta Ndiaye laa ko dara jaale muy maam Cheikh Anta ak Serigne Afia ñëpp dugg nañ ci biir nag muy soxna Faati Anta soxna Anta mi maami sëñ Cheikh Saliou soxna Anta Sali Kane ak sëñ Mbàkke Anta mi nga xam ne moo njëkk a yor soxna Jatture mi njëkk ci bar sàq yi di wajuru soxna Faati sëriñ sëriñ ba euh, sëriñ euh, euh, Basiru nag day sant particulière njabootu Daaru Salaam gépp ak njabootu sëñ Ahmadul Moxtaar gépp sëñ ñang di sëriñ noonu la ko sëñ Tuubaa daan woowee sëñ ñang ndax Ahmadul Moxtaar ñang maa ko sëñ Moroon Sali tuddee waaye di sant baayam yi nag ay xaritam lañ di sëriñ Abou Mouhamed xalifab sëriñ Modou Mamoun ndax daa ceex ak moom kóllëre bu yàgg ci sëriñ xaadim awo ba mi tuddi sëriñ am di doom magi sëriñ abo te sëriñ abo sëriñ xaadim ne woon magam di xaritam ak sëriñ mu Moustapha moom sëriñ Abdul Akram mi nga xam ni bis bi def na ci ay jéego ay ak engagement yoo xam ni ci ndigalu sëriñ Saliou sëriñ Afia ak ci ndigalu sëriñ Abdul Baaxe mi mag ci sëti sëriñ Afia kon sëriñ Modou Abdoul Wadoud ak sëriñ Babacar Mbacke mu kabaroo mi nga xam ni moom tam taxawaayam rafet na lool moom sëriñ Ibra Ndar ak mbooleem ak faati maam Cheikh Anta yëpp rek tàmbalee ci Serigne Modou Mamoun ba ci Serigne Abdou Gora tàmbalee ci Serigne Modou Farmata ba ci Serigne Moustapha Afé ak seen njaboot bu jigéen gépp Serigne Saliou Serigne nag ñu ngi koy sant di xalifa bi Serigne Abdourahmane moom Serigne Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta di jàmbaar di ku baax di ku yiw kon Serigne Mouhamed Mbacke Abdoul Wadood mooy wax ci turu njabootu maam Cheikh Anta ak njabootu Ahmadul Mokhtar Serigne Afia imam Serigne Niang muy genn njaboot di njabootu soxna Anta Ndiaye ñu tuddee leen journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon mboolem kuy taalibeb Daaru Salaam mboolem kuy taalibeb Serigne Afia na nga xam ne bis bi yaa ko moom le 19 bu la ci kenn jiitu ñu ngi woo taalibe yëpp ci turu mbooleem taalibe yi aju ci kër soxna Anta Ndiaye Mbacke gépp ñu déglu Serigne Mouhamed Mbacke Abdoul Wadood mu wax ci turu pare alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala man bu'isa sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din bokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu gën a tedd nuyu bu gën a mat jële ko ci suñu kilifa mu jële ko ci ay kilifaam muy sëriñ Moustapha mu Cheikh Abdoul Akram mu jële ko ci way juróom Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Anta Mbacké waaye jële ko itam ci ndigalu magam Serigne Abou Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Modou Mamoun mu maam Cheikh Anta Mbacké ak ci waa Daaru Salaam yépp Serigne bi Serigne Moustapha wax ma ne sëriñ mu ngi sant sëriñ Bassirou mu sëriñ Xaadim Awa Ba ci bis bu rëy bu tedd bu màgg bii nga xam ne daf koo yàgg def lool te jubluwu ci ludul dundal ak mbokk ak jaamu yàlla ndax bisu fàttaliku ak sant ku ko mat te mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké bis la boo xam ne jace daje bari na ndax li ñu fi tax taxaw ñu ñuy tey muy suñu bisu bopp feeñ na ci feddliwaat kóllëre goo xam ne ak bokk moo ko lal te nii nga xam ne tuddee na ko noonu suñu ñaari maam yooyu te mooy njabootu suñu maam Anta Ndiaye Mbacke mi nga xam ne mooy boroom liggéey bu mag ba foofu nag laa ci yem mooy boroom liggéey bu mag ba li may bëgg a junju ko xam-xam nga li ma bëgg a wax waaye daal mooy boroom liggéey bu mag ba te kër maam Mor noonu Bassirou Mbacke ni ko Cheikh Samb waxee sànq mboolem njabootu maam Anta Ndiaye Mbacke ni ko tuddee ñu ngi woote sëriñ baa ngi woote di woo ko aju ci ñaari kër yooyu ak mboolem ko ajuwaat ci diggante soxna maam soxna Faati Anta ak soxna Anta Sëri Kan ñu si aju ñëpp seeni njaboot ak mboolem taalibu aju ci Daaru Salaam ak maam kër maam Cheikh Anta Mbacké sëriñ Saliou sëriñ Abo ci kàddu sëriñ Moussa Abdoul Akram nee mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn di santaat nag bu baax a baax a baax a baax Serigne Bassirou mi nga xam ne moo woote lii te daan ko woote man nag ma gise ci ne dañuy wax ne sant Cheikh Mouhamadoul Amine Bara Mbacké waaye dafa mel ne fésal ak yaatal sant Cheikh Mouhamadoul Amine Bara Mbacké la ndax lii bu ñu xoolee Cheikhul Khadim ci boppam bés bi nga xam ne digle woon ko muy màggal gu mag dafa mel ne def na koy at te kenn yëgu ko ba bis mu biiral ko ba mu àgg fii mu àgg kon dafa mel ne Serigne Bass yaa ngi barkeeloo loolu ci ni ko sama am defoon yàgg nga ko dund ci sa xol di ko sant ca na nga ko mane nga dem ba mu ëpp sa xol ëpp sa xel nga yaatal ko ne maa koy yaatal woo ci bopp yëpp ak xarit yëpp ak am yëpp ak bopp jullit yëpp ñu amaat beneen kontaan bu rëy te mooy ñëpp bokk neen lañu waaye nag ñi nga xam ne ñoom nga walla ñun moom lañ bokkal amul Amadou Amin Bara Mbacké te ñu ànd ak yow ñii di say mag ñii di say rak ñii di say jarbaat ñëpp dafa mel ne koy wax dafay mel ne bés bi moom dafay mel ne ku toog ci nen bu sañoon lépp ni ko nit ñi di waxee ñii pour cent lay mate loolu nag ku am ci sa biir bopp war ngaa santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax ndax yombul kon nag li la may loolu moo moo moo nekk ci sa xol ba du mel yi taxaw ñu ngi ñaan yàlla ci daraje Cheikhul Khadim barke Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké bis boo mas a taxawal bis boo mas a taxawal ci ci ci yi jàlloon bis bii yàlla na ko gën a rëy ci zahir te yàlla na ko baatin ba milliard ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp itam nag ndax bés bi tey suñu bisu bopp la kon képp ku fi ñëw ñoo la war a sant ñoo la war a gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ ci ràddal ak seen kàddu yi ñu wax ak niñ ci sonne seen jotaay ak seen ak seen toogaay bu yàgg bi ñuy sant leen ñun la war mboolem ku fi xam ne tam bàyyi na yiteem ñëw ànd ak ñun suñu bisu bopp bii ñu ngi lay sant fa sant sàmbale ba fa am yem ci kilifa yi di leen ñaanal yàlla mu sàmm ñëpp te taxawu ñëpp te aar ñëpp may ñëpp jàmm salaamatan wa afiyatan bi barakaat Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu taarakallah Serigne Mouhamed Mbacke Abdoul Wadoud wax ji ku dégg nga wax xam ni borom xam nga mu mel ni Serigne Saliou Mbacke moom sëñ Xaadim Awa Ba mii kilifa boppam sëñ Bas nag yebal na fi Serigne Mouhamadul Yeddaali ak Serigne Cheikh Mati Lay ak Serigne Modou Aïssa ñoom ak Cheikhouna ak sëñ Amdi ñoom ñëpp di doomi Serigne Khadim Awa Ba soxna Ndeye Mbacke moom Serigne Mamour Sikap moom Serigne Modou Mamoun ànd naag délégation bu am solo Serigne Cheikhouna Serigne Mamounum Serigne Hamidoun ak Serigne Saliou Hamidoun maam Cheikh Mbackeem Serigne euh, Sidim Serigne Hamidoun ak Cheikhouna ñoom ñëpp bàyyi ko nañ Daaru Salaam ànd ak Serigne Mouhamed Mbacke Abdoul Wadoor mi nga xam ne tey moo jiite délégation bi bàyyi ko Daaru Salaam ak kër Serigne Afi Cheikh Abdoul Ahad may nan ko may moom araste mooy ki nu moom ah, te sant borom araste mooy ki nu moom ma jug te sant borom araste mooy ki nu moom di farluwaat ka jéem kañ sibtu maam jaara te julliwaat ci rasool selmal ci dellu wusool ci bamba mi wusool may ibnu mam jaara man mii ahmadu daam toddoonu mboor ya fandaam may soosi daa bëgg a ci way sëriñ baara naa gaddu daay wurus delluwaat way ba mu fees lamiina kay magi bas te mooy baara yaa ëhla ndaam jege ma jug jege ñu bokk way fi lamiin ja Cheikh Baara naa gëstu na melowoo te lam solowoo man surtout Modou Isolo may kañ Serigne Baara naa gëstu na melowoo te gëstu lam solowoo man surtout Modou Isolo may kañ Serigne Baara naa gëstu na melowoo te gëstu nam solowoo man surtout Modou Isolo may gañ sëriñ baara yàlla ko fal ca xadim sante ko ma xadim moo tax ma farlu du jéem ngir way sëriñ baara fa gaay yàlla yewoon diwaan la mbar ma ne woon ko tànn na ngeen ràññee baara yàlla ko tànn fa muy turandoo ki fi gën tey leeru mbër mi fi man xam ngeen Serigne Baara rasulullah turandoom moo fab garaat ya fa moom jébbalu ko najlul xadim soppem ba Serigne Baara njol màkka dellu jëlaat sañ-sañ ya dellu joxaat lamiina kay sunu njiit mbër dëggu mooy baara xemmem garaat ya am moo tax ma jóg bëgg a jëm fa mbër ma sàkku ji duyal ma mam baara ma doglu naa jalli naa may farlu waata ka jéem ngir kañ la mbër mi xadiim barkeeb Serigne Baara benn bis la am benn bis a ko ñor benn cër la wuyoo muy Serigne Baara Mbacke gaynde seriñ Serigne Baara ambassadeur ub Serigne Baara Serigne Bassirou Mbacke xaadim awa ba Serigne Baara di doomi Serigne Touba di nga xamante ni si beral na ko tërig boppam damay wax ni kër Serigne Touba yëpp assurance lan waaye ñaari façon assurance a am contre terre ak tout risque koo tooñ fay ko ku la tooñ fay la waaye touriste koo tooñ mu fay la ku la tooñ fay la loolu moo gës Serigne Bara ba Bassirou ci jom ji ba Bassirou ci fit sëriñ ba Bassirou ci ngor gi sëriñ ba Bassirou ci fulla ji ak xam boppam bëgg lu baax nangoo ñëw ci këru diine yi loolu moo la may cër bii nga xam ne sa baay bu baax ba ne woon na la xamoon naa ni Serigne Baara dina ko am waaye ku koy woote laa xamul woon ndokk ba mu dara ca kaw Serigne Baara Serigne Saliou Serigne Khadim Awa Ba sama ju baax ji yebal na fi délégation wax nañ ko léegi Serigne Cheikh Mat lay sa rak ànd ak Serigne Modou Aïssa ak seen yeddaale ak seen i rak ñoom ñëpp teew nan njabootu Serigne Baara gépp a ngi nii këri diina yëpp a ngi nii l'islam bi yëpp a ngi nii l'islam jamu la diina ji jamu la mbokki gi jamu la waaye nag noonu la nga mën a mel ndax Serigne Khadim Awa Ba ji jaatum Serigne Baara sa baay ba noonu la meloon nag njabootu Serigne Baara gépp Serigne Modou Baara gërëm na ko Serigne Abdou Aziz gërëm na ko Serigne Sidi Matar gërëm ko njabootu Serigne Bara bépp gërëm ko kon nag ñu dégluwaat ñu ñëpp coordinateur l'infatigable Serigne Bassirou Mbacké xarit Awa Ba. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maa ngi yëkkati sama kaddu ci kaddu yu gàtt. jataay bi ku ne xam ne ni yàgg na te gudd na te kilifa yi depuis 16 heures ba léegi ñu ngi fi Serigne Cheikh Aziz jërëjëf Serigne Sidi jërëjëf Serigne Modou Aïssa jërëjëf Serigne Bassirou Ahmed ak sëriñ Abdoul Aziz bu ma leen tuddee ñu yóbbaale ñi fi nekk ñëpp di wax rek ni sëriñ Modou Abdoul Wudoon kàddu yi nga fi yëkkati dayoon na sëkk bis bi ndax matale nga lépp bu ma jaaree ci yow dana dugg ci mbooleem kër Maam Seex Anta ak kër Sëriñ Afe ndax waa atul buy tamit aboi biya te yow yaa leen fi teewal Cheikh Mamadou Lamine Bara mi nga xam ni nag mooy sunu bunt ci kër googu ci kër yooyu yëpp mi ngi nii toog nga xam ni digganteem ak njabootu Serigne Bara du tey démb la Serigne Bara rakkanam jërëjëf Serigne Khadim mu Serigne Abbas wana nga ni sëriñ Touba këram këru xam-xam kaddu yi nga fi wax gàtt na xayrul kalaami ma xalla wa dal la waaye nag xam-xam feeñ ci ndax ku ko dégg dana xam ni la waraloon Serigne Touba cent 1895 ba muy dem ci géej gi mu fab njabootam gépp teg ko ci loxol borom daaru ngir mu jàngal leen yar leen loolu feeñ sa kàddu yi fa tabarakallaahu jërëjëf jataay bii nag day jataay boo xam ni bu fi journée bi yemoon sax tey ku fi ñëw am nga satisfaction fii jamono toll nag nit bu fekkee ni léegi ni dalaa waroon a fekk ca àll ba bu du woon ak Serigne Touba ku nekk xam na ne ñun ci may sawali jon lañ bokk bu nekkoon ak cedd bu gëmul dara bu du woon ak sëriñ bi nega nii da nga ci am kër Mody ba di bay di sàmmi nag wala ñu nekk ay gone yu séeréer yu ndaw yi daw di taxawal di jëm di fenn. waaye nag loolu Serigne Touba moo ñu ci seppee dugal ñu ci boppam. yaa gore waaye. moo ñu seppee ci loolu boole ñu ci boppam. Eh damay wax ni sëriñ bi kum génn ci yow zéro ngay doon. ndax lépp moom moom la yàlla gërëm nangul ko def ci moom barke boo xam ni même boo takkul ci moom di taalibeem te déggal ko te déggal ko di wéy ndigalam di bàyyi tereem foo dem yëkkati rek teg la ca kaw Modou Mbaye Samba ngi nii mat na ci seede si la Baye Fall mii kasaalika na ko ñoom sant ñu marché te fu ñu dem ñu taral leen di jëm seen loolu nag bu ko sëñ bi defee ci ñun dafa jàpp fii jamono toll jataay yu mel ñii di am jataay yi daa war di am jamono bu nekk ak saa su nekk ndax fii jamono toll xam-xam rek mooy li nga xam ni moo mën a jàllale askan wi te situation bi réew mi toll xam-xam rek ko ci mën a dégg moo tax waykat bi waxoon ni al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu wal jahlu yuxfidu baytal ashi wa sharaf